Vous voulez une bourse de formation professionnelle pour étudier dans les grandes écoles et universités privées du Sénégal et au Maroc C'est possible avec le Comité d'orientation éducative du Sénégal, COE, numéro 1 des cabinets d'orientation, qui est une structure éducative qui œuvre dans le cadre de l'orientation et de l'accompagnement des jeunes. Nous existons depuis 2012 et nous avons orienté des milliers de jeunes dans les écoles de formation du Sénégal et à l'étranger voulez connaître les concours et examens, les épreuves des concours, des sujets et corrections, les offres de bourse, les études à l'étranger, les meilleures écoles de formation professionnelle, les métiers et diplômes, veuillez vous abonner gratuitement sur la plateforme www.coesénégal.com. Si vous cherchez n'importe quelle information qui parle de l'éducation au Sénégal, concours, examens, recrutement, baccalauréat, orientation, université, campus N, les concours douanes, de l'ENA, de la police, de la gendarmerie, des eaux et forêts, du Crème, de l'ENOA, de l'ENSOA, du prétali militaire ou toute autre formation supérieure, le numéro 1 des plateformes éducatives du Sénégal, c'est la seule solution www.educationsn.com. Vous cherchez une offre d'emploi ou de stage Vous voulez postuler aux différentes entreprises qui recrutent au Sénégal Vous cherchez une candidature spontanée Abonnez-vous gratuitement sur la première plateforme des offres d'emploi et de stage au Sénégal, www.offreemploi.com. Toutes les offres d'emploi sont disponibles dans cette plateforme. Vous voulez étudier au Sénégal ou à l'étranger et vous recherchez une bourse d'études Nous vous invitons à vous abonner sur la plateforme des offres de bourse www offrebourse.com. Nous avons aussi d'autres plateformes qui vous assurent les infos éducatives au Sénégal. www.samacampus.com ou www.étudiant.sn. Notre adresse à Dakar, en face de la foire de Dakar, le 16, téléphone 33 827 06 56 77 733 50 83 78 477 57 34. Notre email gmail.com ou bien visiter notre site internet www.cosénégal.com. Nous sommes également présents dans tous les réseaux sociaux. xoolal sa ñuulaay bu bëri dama bëgg nga régler te toog sa place loolu laa lay yëgal sa kanam gi ne kaw su dëmm. Eh sa musóoru góor jigéen bi. maa ngi bëgg. yow Sonia looy wax ak rabu àll yooyu. yow may tee ngaa ñëw fii te bàyyi ma vaurien yooyu.

apa sa sikinya hana te nyu nyu jo tai na wala mo tai lai wa tam la wala cho san lai o ma ti fal mo jo le na inter la wala so nya lai sam la wala medan lai o ma ti fal mo jo le na niki niki ran ran dina me ni ti niki ran ran ran dina me ni ran ni ti niki ran Jipite, jipite, down leg, up, jipite. s'il vous plaît je veux aucune histoire yéen ñaar ci biti xam ngeen bu baax du ma nangu kenn di ma saala wala pëng. waaw ah, mais ça fait looy teg nii meen. xoolal meen sa meen-meen yu bëri nga mel ni ku jógee Jamaïque sa kanam gu bon nii mel ni desutu saw xam ngeen bu baax ne du ma wor ba ngoon di ko jox ay sàmba sula baali. saf fii sa place la. am nga droit def ci lu la neex. mais bu ñu xañ suñu droit. le client est roi. boobu day fekk mu nekk client yu jub waaye seetaankatu porno ak kukaande sortee. Eh, mais xoolal fii sa xoolal bu fekkee ñi la demee coolul. boy dañ get out man. yaa fa naaja man. ngeen di égaler seen kër man. maa de fokk. sax yow lu tax nga ñàkk kersa ñii ay nit lañu teg si ay jullit comme yow bu dul dara nga rus weeru koor gi. Sonia yow yaay wax lii tey ay waay l'avocat di jaabu nee na si këru dëgg gi yow marabu bu rattabe fii la la barke Diém moo Ndiaye Okocha bëgg la tous bi rek tey nga ne nga leen di defaan non j'habite ce pays. bonjour son bonjour comment ça va et comment va la santé la siamale su ngeen paree ngeen pousse sama mur de Berlin. Saf pendant plus de 4 siècles l'Afrique a subi les traites les plus horribles de l'histoire à travers le commerce triangulaire. Donc, imagine, le corona n'a même pas fait deux ans et le monde subit des mutations. Alors, essaye de comparer l'esclavage qui a duré 400 ans jusqu'à son abolition, un certain 27, 27 avril 1848. Hey, Fetché, stop! Nga yëbb ni mel ni kuy soutenir mémoire. May wax nga may jaay jàng você. intéressé wu ma. tubaab bu dof bi man lu sama yoon ci esclavage ak mutation ak comparé. téyel ma sa commerce triangulaire balaa may pareeloo pipet sa kaw. te soo paree nga arrière de jaxase la ci losange dugal de ci cylindre. épreuve mat ngay commencé nak yow mom sa wax amul importance si et seulement si sa ñaawaay plus 2AB égal maalu ci digënté diggante dëkkandoo. eh kii day intervenir ndax moy sama je retiens ta so paré Delta ak Thales ngeen wax ma lu ngeen fi def. dañuy commandé. commandé lan. non xay xay xay xay xay xaamu juutu de. wóome. eh. mais juin juillet la si yamale fii ngeen ñewon di ma wut waaye tey du ngeen ci dal ma mom sama ñaay wa jaayu ma leen seen numéro wa ay ya mu gaaw mu gaaw sa orange da len ci jóge togo jàllal tubaab bu dof ñi amuñu ben jom jom ci la esclavo fay na ñeñe abolition wañ wañ est-ce que ay nit lañ ñoo seytaane yi fi ngeen mujjee xoolal na ku palaasam si Méditerranée bi ba ngeen di jéggi mer Rouge tàggoo leen saf bëggal jàmm génn suñu territoire xoolal waxtaan ñi bëgg a bëri saf jóge fi balaa ma laa ñuus léegi dégg nga rëg-rëg ko jaa saf ne me dis pas que je t'ai pas averti yaa ngi déclaré troisième guerre mondiale nga misil ñëw du ne nañ pour dox la dangay mën songaat jëlal boobu yàggaloo tuuti naa de waaye duma jatli duma xombal bu ngeen ma songatee ci xeex di ngeen xamante ne maa raw Chafi San te doxalaa wallaahi. Thank you.